foofu ca jam ñaajo ca centre international de conférence Abdou Diouf ga nga xam ne foofu la doon ubbee dialogue national bi mu wootee moom président de la république kon daal di ubbi rek officiellement niki altine bile li nga xam ne sax moo doon cérémonie inaugurale ci dialogue national bi nga xam ne rek kon dafay marqué benn étape bu amam solo ngir nag ñu jëm ci consolidation wu paix ak cohésion sociale ci contexte politique boo xamante ni nekk na lu tendre fii ci réewum Sénégal candidat yu bari ci élection présidentielle nag ñoom dañoo daal booy boycotté ndaje mënu mel ne nag kenn du leen ca gis waaye nag bu ñu sukkandikoo ci njiitu mi Macky Sall lu nag la ñu def rek teguwul fenn moom tontu bi nga xam ne euh, ëbbal na ko wala sax ñi nga xam ne kon daal nañuy tontu rek euh, ci wooteeb njiitu réew mi Macky Sall maanaam daal dina koy wuyu ñu participer ci élection boobee bokk na ci ay figures religieuses ñu nemmee ko ci réew mi. waaye représentant wu syndicat ak euh, société civile waaye tamit ñaar ci ay candidat yi nga xam ne teew nañ bokk nañ ci ñu conseil constitutionnel retenir ngir élection ñu dëgmal ak ñenn ci candidat yoo xam ne conseil constitutionnel dafa daal di neenal seen candidature bokk na ca Cheikh Tidiane Gadio waaye tamit kii di aline Sarr ba ci sax ki nga xamante ni moo di coon ñaa ak ñeneen ca ba mu jël kàddu nag moom di réew mi Macky sàll moom nag mel ni kuy euh, tontuwaale wala kuy joxeñ baaraam candidat yi nga xam ne dañoo gàntal ne duñ dem euh, ca dialogue bu nu mel moom nag muy xam ne rek ne décliné na position am du nekk candidat te ni ki le avril rek ci la mandaam di jeex ci bopp réew mi waaye nag li leerul ba leer rek mooy moom su boobaa ana nan laay def su fekkee ni rek fileeg booba amuñu fi ay élection ba man fiy tabu beneen njiitu réew ci noonu moom chef de l'état kon for réaffirmé waa rek kàddu yi nga xam ne moom la yëgati woon ne nag moom daal euh, li mu bëgg rek mooy solution ñu daal di waxtaan rek ba trouver solution génnee sunum réew di Sénégal ci guuta gi nga xam ne moom la nekk ndax jàpp na ne nag jamono bile suñu réew moom mu ngi ci guuta fi situation bi tollu faaw rek ñu waxtaan te bañ a rek kenn ku ne nekk fi nga nekk moom mi ne mu jàpp ne mënoon naa xëy rek joxe date ne date bi ci la ñuy dem élection waaye nag nag ni mbir mi demee moo tax ba mu ne du jàpp dat lu dul rek dafa daal di waxtaan te loole moo tax mu daal di woote waxtaan ngir nag ñu xool rek ana ban dat moo gën a yell ngir ñu dem ci ca élection waaye tamit su fekkee ne mbir mi xaju fi ba mu jeex fi léegi mandaam di jeex ni ki le 2 avril ana rek après 2 avril boobu naka la mbir mi di demee ngir nag ñu daal di ko waxtaanee loole sax mooy ñaari ponk yi nga xam ne ci dialogue national bi mu woote moom njiitu réew moom la ñu waxtaanee. des xaarandi rek kon fan la wanante du mujjee ki gëtam ak dialogue national bi nga xam ne moom jiitu na Macky Sall daal na koy wootee foofee ca jam ñaajo lay amee ci centre international de conférence Abdou Diouf jërë ngeen jëf mbokk yi li mu doon xibaar ci belle vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu calante laata loolu way leen di laaj di ci seen chaîne ku dee gan ci page bi te abonné ñoo ngi leen ñaan nga abonné activer sa cloche su ko defee lu dugal ci vidéo nga bokk ñu koy njëkk a